mu bañ a gudd dara warulu ko lu dul dañu wax ça fait 4 ñu ngi xeex ak direction bi mais mën nañu jàpp ni ça plus de 6 ans ñu ngi dund lu metti biir direct biir Grand Moulin de Dakar et sous la houlette de cette nouvelle direction boo nga xamante ni DGA e bi ak DRH bi ñoo koy diriger ñu dund lu méttee méttee métti Grand Moulin de Dakar ñëpp xam nañ ni Mimran ñoo ko fi implanté woon ça fait plus de 60 ans. boobu ba léegi nit ñi di ci dund di ci daan seen doole di jël seen ñaq si sutura ak teraanga di ñibbi seen kër di suturlu ñoom ak seeni ay njaboot mu dem ba Grand Moulin malgré ko mu nekk une société multinationale malgré que ay français moomoon ko les travailleurs des Grands Moulins se sont appropriés les Grands Moulins de Dakar Grands dafa dem ba nga xamante ni ñun sénégalais yi ñoo ko moom. ndax travailleurs yi dañoo bëgg Grand Moulin de Dakar liggéey nañ fi Korité liggéey nañ fi Tabaski liggéey nañ fi Tamxarit liggéey nañ fi Pâques liggéey nañ fi Noël suñu maam yi du doxal Grand Moulin depuis fekk mboq lay wol ba tey Grand Moulin di écraser treize mille tonnes de blé par jour am trois unités de production de de farine am deux unités de production d' aliments de bétail am deux unités de production d' aliments de volaille loolu yëpp. travailleurs Grands Moulins de Dakar vous les vaillants ouvriers vous les vaillants travailleurs de Dakar ko liggéey yéen a ko liggéey mais malheureusement depuis 2004 2014 ak safrula jàpp 2015 ñu ngi assister à un climat social délétère aux Grands Moulins de Dakar un climat social qui ne dit pas nom ñu ngi ñuy bundu xataal à tout bout de champ di jël suñu ay acquis sociaux mën naa ci nommer la pré habitat bi nga xamante ni existe na depuis plus de cinquante ans képp ku am tey kër Grand Moulin de Dakar pré habitat boobu moo la ko may ñu teg si suñu colonie de vacances yoo xam ne suñu ay doom ñoo ko moomoon di ci dem vacances chaque année ku nekk yóbbu nga ci sa doom ñu jógee fu ñu amoon suñu caisse de solidarité boo nga xamante ni service bu ne am na ay déchets wam yu muy jaay ñu di ko dajale di ko def ci benn caisse di ko dimbalee travailleurs yu nekk ci ay xat yooyu yëpp direction bi ba mu ñëwee sous la houlette du DGA et du DRH dañoo dindi lépp ba mu set wecc ba mu jeex tàkk te kenn sañul wax kenn sañul pipe moo loolu doyul ñu dunu dàq à tout bout de champ ñin fi dàq nag bëri na ñii dee nañu ñii dof nañu ñii ñi ngi seen kër di torox di sonn mën nañ ci citer El Hadj Lamine Kambi bi nga xamante ni moom lañ tuddee groupe bii mu nekkoon un vaillant délégué parce que Digal xam na ni Lamine Kam bi arrangé wu ko dans l'entreprise il a tout fait ñu en ñu attaqué ko chargé ko tapas góor la mu fayu ñu enregistré ko ñu dàq ko sans motif valable et sans indemnité de licenciement mu génn mu def ko un choc émotionnel mu nekk ci ay tolof-tolof ba yàlla moom ko yal ko yàlla yërëm te jéggal ko loolu la ñuy dund biir Grand Moulin de Dakar mënuma wax nag ñi ci dàq yéen ñëpp xam ngeen ko mais lu gën a metti lu gën a doy waar mooy ñu ñuy loo ay déficit IPM depuis plus de cinq ans loo xam ne Grand Moulin mosu koo dund ñu bokk benn IPM IPM boo xam ne mi ngi tudd groupe Mimran ñun Grand Moulin ñooy fay déficit mais waa compagnie sucrière du ñu fay déficit du jamais vu dans l'histoire du monde du jamais vu ñu duñu ko fayloo di ñu ko fayloo yàlla mi dara tawul ñoom ñoo ñu yóbbu séminaire ñun délégué du personnel nu ñëw toog inspecteur du travail ñu nu IPM kenn du fay déficit su amee problème dañuy yokk dañuy yokk cotisation yi wala ñu wàññi taux de prise en charge à notre grande surprise ñu ñëw après séminaire boobu nekkoon le 18 février nu ñëw au mois de mai ñu indil ñu benn lettre. monsieur Bavard signé ko wax ni dañuy fay un déficit sur l'IPM de 7 millions et 500 et quelques ñu ne ko nag ñun duñ ko fay yenn yi dafa mel ni ñun ay jaam lañ benn instant ñi yeen dañoo toog direction toog ñu wax ni kenn du fay déficit IPM IPM su amee problème nañ ñu woo ñu waxtaan ñu ni loolu du ci am la direction a pris la décision unilatérale de ñu faire payer ce déficit alors on a dit ñun tamit ñett parce que nag lu jot jot na gannaaw dee te lu dul lu dul dëgg du continuer te du wéy te ragal yab yàlla la alors coow li ni kuur nag ci biir mu moulin bi mais comme dañoo tàmm ndeysaan ñun dañoo def comme ay xar suñu bëggee appart rek dañuy sañuy sànni xaalis ñu am suñu intéressement sur le bénéfice ñu laaj ko ñu ne su ngeen bëggee ñu jox leen seen xaalis da ngeen nangu ñu fay ci déficit bi ñun leen koon téye leen ko ñu am suñu la ni leen téye leen ko alors ñu dem ba ci kanam coow li bare ñu Covid dafa am mënuñu def assemblée nan créer suñu groupe WhatsApp ñu créer suñu groupe WhatsApp le 19 mai 2020 ñun travailleurs des Grands Moulins de Dakar délégués yi nekk administrateurs yi ñu ñëw la goutte d'eau qui avait débordé la vase le 4 juin 2020 on nous a servi des somation interpellatives sur huit délégués et sur cinq travailleurs yoo xam ne dañ leen puluf tànn leen ci biir groupe gi. alors loolu ba mu amee le 4 ñu xëy le cinq à notre grande surprise mu licencier cinq travailleurs sans motif et sans raison valable introduire au niveau de l'inspection du travail l'autorisation pour licencier huit délégués du jamais vu dans le monde du travail donc loolu lañu loolu dund biir Grand Moulin de Dakar boobu ba léegi nag le cinq juin boobu ba léegi nag ñu ngi ci xeex ak direction bi l'inspection du travail a dit le droit il la rejeté l'autorisation de licenciement mais malheureusement la direction s'entête à vouloir licencier les cinq travailleurs parce que dafa jàpp ni ñu amuñu wéeruwaay comme je l'ai dit cinq yooyu pas Sidi Fall Ngagne Demba Ndiaye Aliou Sène Mamadou Samb am Mamadou Samb yéen ñëpp Cheikh Ibrahima Sagna jàpp leen ni am ngeen ay wéeruwaay ñun travailleurs des grands ñun travailleurs des grands moulins de Dakar ñooy seen wéeruwaay et on va partir en grève on va partir en grève inchallah la semaine prochaine dama bëgg chers travailleurs nañ gëm yàlla gëm yonent bi te dëggal suñu bopp nañ wóolu suñu représentant seen syndicaux yi toog nañ gëm yàlla fii ñu toog c'est pas par hasard mi ngi tudd Kër Madia te ñëpp xam nañ Madia lu mu def dans le monde syndical ñëpp xam nañ Madia lu mu lutter pour que travailleur jot àqam ak yelleefam nu ñëw tey ba vingt et unième siècle une direction qui se dit que du ma toog ay délégué sa c'est la comble la direction a dit du toog ak les délégués sur ce sujet un sujet boo nga xamante ni c'est porté par les délégués du personnel une direction boo nga xamante ni dafay nekk di suufal délégué day nekk di rabaisser délégué day nekk di diviser délégué day nekk di diviser personnel mais on va leur montrer qu'on est là debout comme un seul homme à faire donc dañu bëggoon bu bés baa kenn kenn bañ liggéey biir Grand Moulin Dakar ñi nekk fii tey ak ñi fi nekkul yëpp di liggéey parce que pour mu lay dafa daw tey le 24 ak le cinq dañ leen di ñaan ngir yàlla chèque collègue bu kenn liggéey Grand Moulin de Dakar on va arrêter les installations et on va partir en grève et ce ne serait que le début du commencement on la fera di ko def ba koroog ñuy réintégrer suñu cinq camarades qui ont été licenciés abusivement duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg lu doj luy jot jot na gannaaw dee il faut ñu dagg buumu njaam gi il faut ñu dagg buumu njaam gi on lance un appel fort à Seaboard Corporation les Américains qui ont eu à racheter les grands moulins de Dakar on leur lance un appel fort ils ont investi des milliards pour acheter cette chère entreprise qu'est les grands moulins de Dakar ñu ñëw fekk fa de vaillants travailleurs yu bëgg a grands moulins de Dakar Depuis lors, on les écrit pour les rencontrer, mais la direction à fait une barrière entre nous à les repreneurs qui sont les Américains. Nous leur lançons un appel fort à travers la presse nationale et internationale que dans ce climat délétère qui est au Grand Moulin de Dakar, personne ne peut travailler, personne ne peut avoir des bénéfices et personne ne peut relever le chiffre d'affaires de l'entreprise dans ces conditions. Parce que nous travailleurs, il faut nous noyer, ak xel mu dal pour société bi mën a jëm ci kanam parce que direction bii fu nekk taxawul pour Grands Moulins jëm ci kanam dafa taxaw pour Grands Moulins suux pour Grands Moulins nërmeelu ñun ñëpp ñu dàq ñu ñu dem suñu kër toog société bi tëj direction bi loolu la bëgg léegi nag ñu ngi lance un appel aux Américains on lance encore un ultime appel pour que ñu ñëw ñu xool autour d'une table comment régler cette question définitivement parce que cette direction ce top management taxawuñu pour régler les problèmes des travailleurs parce que bëgguñu Grands Moulins bëgguñu Grands Moulins avancé bëgguñu travailleurs Grands Moulins avancé et c'est ça la triste réalité qu'on est en train de vivre au Grands Moulins Dakar